Touba ci kanam. ku ko ci xam. lu ngeen lu ngeen message rek naa ko sasoo. waaw kii dugal naa ji téeméeri junni. wajalilaayi maskani Touba baat misrak mi abijaayi xayri man abaat. Touba ca kanam moom ku ci bokkut xaw ma man looy bokk. ñi nga dégg naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Touba ca kanam am. ah ñoo ko sikkar di ko wax bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sax léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Touba a kanam ay xeej ak i ñaw koy jeesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Touba ca kanam moo bëgg a def loolu ab laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi te wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da ngay xeex léegi sëñ bee war a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj lool yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon badar dañuy jeex Touba ca kanam mooy def ko. liggéey boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni i barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeel wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam